bismillaahi may tàmbalee ci alqahwatu te yu saaree mbiram mu ne pireem ci wolof moom la ñu wax kafe leen ko di tàngal te bu leen ko kafe nee na kafe moom dafay dàq lor di ñoddi ay njëriñ boo amee coono tàngalal kafe kapteere fukk ak ñaar ci kaas yu wér utal wiit bu mat wiit nga def ca barteeg kafe utal jar gu bees nga def ca moo koy safal nee na bu sab taal di giim dem yaa ngi saaf kafe ba muy xam ba muy dese ak ñor itam nee na na nga raxal ca teel sa yow sa yére kafe wutal morso boo xam ne day seet bi res nga toppatoo ngir pomp yére kafe bisimilah moom ngay tàmbalee Fatick fa la xëy naa si mooy saaf kafe nee bul ci siis bul ci boddu bul ci xalam naan ko dong nee na mbooloo mooy baaxu kafe nee na digal na itam yow miy xelli kafe na nga yëkkati sa loxo na jëm kaw nga na jëm kaw ndax ndax nga nga sa sa kaasu kafe dégg kon. Euh, lu ci topp itam nee na saabu xam bi da koy dog saabu di sa beñoor da koy soofal fexeel ba génn lu diw gu loolu ko kafe bu mu ci laal lu néew néew lu mu ci laal lu néew ne rek da koy dog waaw kon loolu daal moom la la na solo ci fàtte itam bu bu ngeen desewaatee. Ah. Ah, bu jërëjëf ñu ngi ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mboolem ñi nga xamante ne bii yéen nekkoon ci eh, sunu Yaatal Vision di leen ñaan yéen mbokk yëpp ngeen marché abonné ci sunu compte YouTube bi di Yaatal Vision ngir lu yaatal Sénégal yaatal réew mi eh, gën kaa naatal ci nu yàlla ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.